Serigne Souleymane Dione Serigne Souleymane Dione mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1878 ci dëkk bu ñuy wax Musnaax Musnaax nag mi ngi ci wetu dëkk bi nag di Ngunjaan ci boori Xombal ci dëkk boobu nag la feeñee jamono moom Serigne Souleymane Dione di doomu soxna Angel ak ku ñuy wax Serigne Mbisaan Dione Serigne Souleymane jonn nag am na ñu bokkal soxna Angel ak Mbisaan Dione ñu mën cee ràññee ku ñuy wax Ibrahima Angel Mbay Angel ak ku ñuy wax soxna Juma Angel ñett ñii nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent Souleymane Jonn mi ñu wax leen moom mooy kan bi mu feeñee jamono nag ci dëkk boobu nag di Musnaax ci atum 1878 waajuram nag ci law jonn nag la ko tudde woon mu nekkin nag ku yéeme nag ci dëkk boobu nag di Musnaax bi mu tolloo nag ci waxambaane nekkoon na itam nag ku am doole bu nawet masaa ñëw alléer bi nga xam ne nii ci lay bay daana yàq nag lu tolloo nag ñetti alléer nag ci nawet bi wala daana jeexal nag lu tolloog ñetti alléer nag ci nawet bi daana wax ay waajuram tëgg yi lay defaral alléer mënuñoo tëgg waajuram di ko wax ne kay tëgg yi nag lépp nag ci yawa mu nekkin nag ku am doole daanu suubu itam nag ci bëree toog na nag lu tolloog fanweeri ati yàlla sa daanu ndax moom ci famille ceddo nag la juddu nekkuñu woon itam ay jullit kon ak njullit nag ci famille bi mu bokk moom mii nag moo ko ci njëkka a doon na askanu séeréer bi mu bokk itam nag xamoon nañ jëmm ji eggoon na itam ci làmb kum ne ñu bëree itam nga bañ ndax xam nga ne kat jëmm ji nag moom moo lay daana ba am bis nag mu dem nag ci benn làmb doon fa bëree waaye bisub keroog nag mbër moomu mu dajeeloon xam na ne daal mu mbër mi ñoo tolloo doole ci côté bu mënul sa moroom ba tax na itam nag bisub keroog itam nag dereet sax bari na fa ci ñoom ñaar ndax kenn ku ne daal def nga pexe daal ngir daan sa moroom waaye munoo ko ginnaaw bu làmb jooju noppee nag ba mu dell si siwaat nag ci dëkk bii nag mu feeña jamono nag di mus naq la yëg ci boppam ne daal lii di bëre nag da ko war a bàyyi mu ci waxtaanee ñim ci war a waxtaanal ba noppi boole koog nag ci yaramam nag mi ngi yëg ne daal bëre nag da ko war a bàyyi làmb jooju nag ci la bàyyee bëre bàyyi nag ci dëkk boobu nag di naax dem nag ci dëkk bii nag di ceesa fas yéenee defi leneen nag commerce nag la doon yëngatu ci dëkk boobu nag di Thiès fa la fa giseek nag jàmbaar ji nag di sëriñ Abdoulaye Yakhine Diop ginnaaw bu mu giseeg sëriñ Abdoulaye Yakhine Diop ba noppi la ko sëriñ Abdoulaye Yakhine Diop nag di ko xamal ne ndongali yow de ku yomba defar nga su ma àndoon ak yow nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina dana la defar ginnaaw bu sëriñ Souleymane Jonn nag jógee nag ci dëkk boobu nag di Thiès nag ci sëriñ Abdoulaye Yakhine Diop la ñëwaat nag ci dëkk bii nag di Mousnakh dem fekki nag benn góor yàlla nag bu toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ku ñuy wax sëriñ du Ngom góor bum jébbalee boppam nag sëriñ Modou Ngom góor mi nekk ba am bis nag sëriñ Modou mi nag doon ñëw ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool booba nag Cheikhul Xaadim nag mi ngi ci dëkk bu sell bii nag di njaareema ginnaaw bu mu ko indee nag ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool la sëriñ Modou Ngom góor mi nag doon xamal ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool ndaw ma àndal sant naa ko bu baax a baax nag gërëm naa ko maa ngi doon sàkku nag ci yow ëllëg yow mal xiyaam nag lépp nag loo ma war a defal nga joxal ma ko nag jëmm ji Cheikhul Xaadim nag keroog mi ngi doon laaj nag sëriñ Souleymane Jonn nag noo tudd di ko xamal na nag ci law laa tudd seexul xaddim nag di ko xamal ne nag Suleymaan daal moo gën ci law ci yóbbu googu ko sëriñ Moodu Ngom góor nag yóbbu nag ci sëriñ Tubaa seexul xaddim ci la sëriñ Suleymaan jonn mi jaayante ku baax ki sëriñ Tubaa xaadim rasuul la seexul xaddim nag téye na ko fa ab diira ginnaaw bi nag la ko yeewi di ko wax ne nag na dem nag ci waajuram boobu nag di Musnaax nekk fa bi mu delsee nag ci dëkk boobu nag di Musnaax lam bàyyi woon ay waajuram nekk ci nag ci leen fekkaat nag ba tey muy bañ a nekk nag ay jullita tax na jafe-jafe yu méttee métti nag dund dëkk boobu nag di Musnaax xeex bu metti nag lañ ko xeex nag xeex ba nag ay mbokki boppam nag ñoo ci jiitu woon waa dëkk ba ak waa tund wa rawatina nag baayam bi ko jura waajuram woowu nag di mbisaan ci ceddo googu nag la génnee àdduna waajuram itam nag eggoon na ci saabu sëriñ Suleymaan Jonn nag jàppe nag bay bëgg a julli dana fexe daal ba wut nag lu mu ko yónni ngir sëriñ bi nag bañ julli ñëw na nag ci ki yaakaaroon sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko xamal ne daal dëkk bee ma nekk nag jafe neen nag laa fay dund ndax ñëpp nag ña ngi may xeexa yoon fii nag ma jël la su ma demee sax bay bëgg a julli sama waajuru góor wi sax dana fexe nag ba wut lum ma yónni ngir ma bañ a julli seexul xaddim nag di ko xamal ne waxtu nag dana la xaara ci jafe-jafe yooyu nag la wéy nekk dundu musnaax woowu itam nag wéy itam nag di ko xeexa ci diine jooju nag mu dugg bépp xalaat nag bu ñu am bu ñu foogee ne buñ ko defee moo xam nag ci aaday séeréer nag wala pexe yi ñuy xalaata sëriñ Souleymane Jonn mi nag dana bàyyi nag lii mu nekk nag delsiwaat nag ci li mu mu nekki pexeem moo xam nag ci aaday séeréer nag moo xam ci yeneeni pexe bu asamaan setee sëriñ Souleymane Jonn nag dana la seet si di la wax ne biig nag li nga doon def lépp nag gis naa ko wala mu yónnee ci yow nag ndaw di la xamal ne nag li nga doon def nag biig nag gis naa ko ci jafe-jafe yooyu nag ci lañ wéeg sëriñ Souleymane Jonn ginnaaw bi waa tund wi nag xamee ne nag mënu luñ ko dara ñu tàmbalee jaayanteeg moom mbooloo mi njëkk a jaayanteeg moom nag ngir liggéeyal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mbay Jonn nekkoon rakkam dëkkoon nag ci dëkk ñuy wax kër yagan tin dëkkoon itam ci dëkk bu ñuy wax kër wasik amoon na ku ñuy wax sëriñ bu ñuy wax ñaax am na kuñ doon wax sëriñ Saaliw tin ak ku kuñ doon wax sëriñ Jibril Ñing ak kuñ doon wax Ilimaan Ñing dëkkoon itam ci dëkk bu ñuy wax kër Sange amoon na kuñ doon wax sëriñ Lamin Jonn ak kuñ doon wax Calaw Ñing dëkkoon itam ci dëkk bu ñuy wax kër Gang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen i góor yàlla nag yu mu àndaloon nag di liggéey ngir jëmmi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tax na lu takkoo takkoo takku nag def na ko nag ci ron ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la daana bay nag di yit ku baax ki sëriñ xaadim rasul daana taxan itam nag di yut ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul woow mu nekkoon itam nag fexe na ba kenn yëbu fa yoonu murit musnaax googu nag la wéy nekk topp nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul sëriñ moodu ngom góor mi nga xam ne ni nag moo ko indi ci ku baax ba ni sëriñ moodu ngom góor nag génnee àdduna sëriñ moodu ngom góor mi nga xam ne moo ko indi nag ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul laataa muy génn àdduna lu yéeme xew na ci ci digganteem ak sëriñ suleymaan jonn ndax dafa am bis sëriñ suleymaan jonn nag feebar bu méttee méttee métti nag daaneel ko benn naar nag bu xees pecc nag ñëw nag seet si ko te naar ba nag kenn xamu ko woon nag ci tund wa di ko xamal ne sëriñ Moodu Ngom góor mi ngi fiy waaj a bàyyi koo waaye lépp lu mu yoroon nag yow mii nag yaa koy yor suñ borom xamal na ma ko ginnaaw bu naar bi tàggutoog moom nag ba ñibbi la sëriñ Souleymane Jonn mii nag wér ginnaaw bu mu soloo dàllam nag di seeti nag sëriñ Moodu Ngom góor mii la dem fekk nag sëriñ Moodu Ngom góor nag feebar sëriñ Moodu Ngom góor itam nag di ko xamal ne lépp lu ma suñ borom dénkoon xamal na ma ne su ma fi bàyyi koo nag ci sa loxo nag lay nekk tax na sëriñ Souleymane Dione nag daana wax ne tundu mus naax wi képp koo xam ne nii daal yëg nga dara daal ci suñu boroom bala nga fee bàyyi ko da nga ñëw tàggu si ma mu wéy nag ànd ak ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba ni fi sëriñ tubaa seexul xaadim bàyyi ko ci atum 1927 mu jël léppam nag jébbal nag cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoole nag xaadim rasuul la ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke la jël léppam nag jébbal nag doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke ba di sëriñ mbàkke madina ci loxoy boroom madina nag la wéy 1976 mu génn àdduna sëriñ Souleymane Jonn nag am na ak njaboota njaboot googu mu am nag soxna yi leen meññi soxna mu njëkk dëkkool mooy soxna suñuy wax soxna sani soxna sani mii nag moo meññi nag taawub sëriñ Souleymane Jonn muy ku ñuy wax soxna Njóoba Jonn ñaareelu soxna nag bu sëriñ Souleymane Jonn dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna Seynabu Jonn soxna bu Jonn mook sëriñ Souleymane Jonn nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mbay Jonn soxna Ami ak sëriñ Aline sëriñ Souleymane Jonn nag dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna Awa Njaay soxna Awa Njaay mook sëriñ Souleymane Jonn nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Jonn di kim faye Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi njëkk a wutu Xaadim Rasuul ak ku ñuy wax sëriñ Jonn ñeenteelu soxna nag bu sëriñ Souleymane Jonn dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna Faatu Juuf soxna Faatu Juuf mook sëriñ Souleymane Jonn nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Ummi Jonn sëriñ Abdu Jonn sëriñ Mbay Jonn ak soxna Jonn juróomeelu soxna nag bu sëriñ Souleymane Jonn dëkkoo woon muy ku ñuy wax soxna kumba ngom soxna kumba ngom mook sëriñ Souleymane Jonn nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna nday jonn sëriñ Vieux jonn juróom benneelu soxna nag bu sëriñ Souleymane jonn dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna kumba ngom ba tey soxna kumba ngom miitim nag mook sëriñ Souleymane jonn nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Roqaya jonn ak sëriñ Useynu jonn njaboot gii nag la sëriñ Souleymane jonn am ci mbooleem nag soxna yim dëkkoo woon mu wéy nag des nag ci tundu musnaax waw nag di yar di jàng ak di jàngale di dundal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag joxoon muy tund woowu nag dem fa toog fa bu fa lor kenn képp koo xam ne nii nag war nga koo jariñ itim nag nga jariñ ko ko tax na am na pël buñ doon wax nag Jibril mas na ruural nag sëriñ Suleymaan Jonn pël boobu nag di Jibril bi mu xamee ne daal li mu yàqal nag sëriñ Suleymaan Jonn nag na lool na ne daal sëriñ Suleymaan Jonn nag bu yëgee lii du mën a sedd ginnaaw bu sëriñ Suleymaan Jonn nag soleew dàllam nag seet ca tool ya demoon na itim nag seeti Jibril di ko xamal ne man damaa ñëw nag ngir jéggulu si la sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag doon na ma xamal loolu nag ci tund woowu te bu fa lor kenn li tax nag ma ñëw nag di la jéggulu yow xam nga ne nag yow yaa ma tooñ suñ borom mi tim nag xam na ne yow mi yow yaa ma tooñ man mii tim nag xam naa ne yow yaa ma tooñ askan wii di seede yi tim nag xam nañ ne nag yow yaa ma tooñ jéggal naa la pël boobu nag di jibril at moom itim nag la mujj itim nag ci tund musnaax woowu ba tey ci jëfi sëriñ Suleymaan Jonn am na ñaari taalibeem nag yu jóge woon nag ci dëkk boobu nag di musnaax dem nawet itim nag ci kajoor muy ku ñuy wax bàngu ndawri dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax sa ak rakkam ju ñuy wax muudu njaay ñoo jóge woon nag ci dëkk boobu nag di musnaax demoon naweti nag ci kajoor ginnaaw bu màggalu tuubaa jub see nag sëriñ suleymaan jonn nag feeñu woon na nag seen njaati gëlee nag ci gént bi ñu yeewoo suba nag la leen seen njaati gëlee nag di leen xamal ne yéen de seen sëriñ xam naa ko ñoom ñaar nag ñu di ko xamal ne ñun kay dañ fee nawet si woon dong kon nag mënoo ñoo xamal dara ndax laajoo ñu mu leen di wax ne nag màggalu tuubaa gi nag mi ngi jub si bu leen ma wax dara danaa ànd ak yéen nag ba ci seen sëriñ ne leen kii la ñoom ñaar nag ñu di ko xamal ne loolu de soo ko defee nag ñu xam ne xam nga suñu sëriñ màggaluk Tuubaa gi jub seen ak la ànd ak ñoom ñëw nag ba kër sëriñ Mbàkke Madina ci néegu ñax bi nga xam ne nii nag ci la sëriñ Mbàkke Madina nag daa dalal nag sëriñ Souleymane Jonn bi seen njaatige li ñëwee nag la nuyoog sëriñ Souleymane Jonn geesu nag yem ci ñoom di leen wax ne de kii mooy seen sëriñ bisub ca la sax waajooji nag mi ngi doon xamal sëriñ Souleymane Jonn damaa bëgg nag nëbbutu gi ngay def nag nga bako te wanewu nag sa bopp sëriñ Souleymane Jonn nag dafa mujj neexal waaji nag ngir mu jóge fa di itam nag sëriñ Souleymane Jonn nag def na ko itam nag ci ay taalibeem ba tey ci jëfi sëriñ Souleymane Jonn am na rakkam juñ doon wax Ousmane Jonn daa bëggoon a tukki ginnaaw bu mu waajee ba jekk nag te tàgguwul Serigne Jonn bi mu ñëwee nag bëgg a yëgal si nag Serigne Souleymane Jonn nag di ko xamal ne nag daa bëgg a tukki bu mu nuyonteeg Serigne Souleymane Jonn ba noppi ci bi nag jëla ko Serigne Souleymane Jonn nag di ko xamal ne tukki da moom daa bari nag ay muskila nag yu ci nekk soo tukkee nag ba fi say moroom bala ngaa ñibbisi fekk nag say moroom nag takk soxna am itam ay doom soo ñibbisee nag boo dee nuyoo ñoom ñu woo seeni doom ne doom ngay yónni soo indee ak boo indiwul nag gàcce am na kàddu yooyu nag mu xamaloon nag Ousmane Dione ci jàmmante boobu mu doon jàmmante Ousmane Dione ci la Ousmane Dione fommee nag yoon woowu nag mu bëggoon a dem bi mu toogaatee ay fan nag la dellusiwaat nag ci Serigne Souleymane Dione di ko xamal ne daal ku ma jaaxal nga bisub keroog kat ba mu fii ñëw dama laa bëggoon a tàggu si daal tukki wax jag ma wax nag moo ma taxoon a yebbi lii nag sëriñ Serigne Souleymane Dione itim nag jaar na ci akuk njabootam wala kenn itim nag ci njabootam ba tey dëkk bu ñuy wax got nag suriwul dara nag dëkk boobu nag di mus am na bisitim nag mu seet si woon sëriñ Souleymane Jonn ginnaaw bu mu ñëwee nag ziyaare si sëriñ Souleymane Jonn nag ba dem la sëriñ Souleymane Jonn nag woolu doomam ju ñuy wax sëriñ Moustapha Jonn sëriñ Moustapha Jonn moom sax moo toog ab xalifaam jamono ji di ko xamal ne pël bee di dem nag xam nga lu mu fi doon wuta Moustapha Jonn nag di ko wax ne ko déedéet suñ borom de xamal na ma ne day waaj a génn àdduna moom moo taxoon nag mu ñëw nag di ma tàggu si sëriñ Souleymane Jonn nag keroog mi ngi doon xamal doomam nag sëriñ Moustapha Jonn wii ma nekk nag suñ boroom nag xamal na ma ne bépp ruugoo xam ne nii yëg nga dara daal ci suñu boroom bala ngaa ñëw jamono danga ma tàggu waaye bala ngaa génn jamono itim nag danga ma tàggu suñ boroom nag defal na ma lool nag ci tund wi ba tey ci kiimaani sëriñ Souleymane John am na kuñ doon wax Aliou fay dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax kër mbaar ginnaaw bu mu seet see sëriñ Souleymane jonn nag ba yendook moom bi mu delloo nag këram bi asamaan setee nag lañ ko yuuxoo sëriñ Souleymane John nag mi ngi doon xamal nag njabootam démb bi mu fi yendu see nag la ma doon tàggu suñu demee nag néegam ca gaal sàngam lépp nag lu aju nag ci mbalaan ñu ko war a sàngee ak parfum nag bi biñ ko war a xeeñale suñu demee nag danañ ko fa fekk noonee ko sëriñ Souleymane Jonn waxe woon ba ñu demee ca néeg ba itim na lañ fekke woon nag sëriñ Aliou Faye moomu nag defe ko noonu ba tey ci jëfi sëriñ Souleymane Jonn soxnaam si ñuy wax soxna Faati Juufa laataa muy génn àdduna sëriñ Souleymane Jonn nag wane na ci nag xar baaxam wala wane na ci nag ak yi maanaam dafa am bis soxna Faati Juuf moomu nag feebar bu méttee méttee métti daaneel ko nag waajuram wu jigéen ginnaaw bu waajuram ñëwee nag di seet si doomam jooju nag di soxna Faati Juuf Sëriñ Souleymane Jon am na bis boo xam ne nii nag jàkka ja nag la jógee bi mu ñibbisee nag ci gi la ñëw nag seet si nag soxnaam soosu nag di soxna Faati Juuf ginnaaw bu mu ñëwee nag la fekk nag waajuru soxna Faati Juuf nag di jox soxna Faati Juuf nag lu mu jëfandikoo ginnaaw bu Sëriñ Souleymane Jon nag laajee nag naka soxna si ñu di ko xamal na daal mi ngi tane ba jamono jii sax ñu ngi koy jox nii nag muy xéewlu ci la Sëriñ Souleymane Jon nag wiccaxe bopp bi di xamal nag yaayu soxna Faati Juuf jii daal laa am daal lu ma metti ci soxna sii nag diirub nag bañu àndee ba léegi lu metti nag mi ngi may doog a dal nag ci moom lu metti nag mooy génn àdduna gii nag mu génn àdduna te booba nag soxna Fatou Diouf nag ñi ngi koy jox nag mu lekk génnagul woon àdduna nag ci zaayir ginnaaw bu mu leen wanee ginnaaw nag la woolu doomam nag sëriñ mbay jonn ànd ak moom nag dem ci néeg ba di ko wax ne nag muñal sa waajur wii génn àdduna nag bisub tey bii dong nag laay doog am ci moom nag lu ma metti ab diir bu néew nag lañ ci teg soxna sa nag génn àdduna sëriñ Souleymane Jonn nag def na lii nag ci soxna naam suñuy wax soxna faati juufa soxna faati juuf mii nag moo meññ nag doom ju ñuy wax sëriñ mbay jonn ba tey ci tawféexi sëriñ suleymaan jonn keroog bi ko sëriñ tubaa seexul xadim nag di gërëm ci njaareem waxtu woowu ko sëriñ tubaa seexul xadim doon gërëm ci njaareem dafa tombeeg itim waajuróom itim nag dajale woon mbooleem waa dëkk ba di leen xamal ne suleymaan jonn mi itim nag gërëm naa ko ginnaaw bu sëriñ suleymaan jonn nag jógee njaareem nag ñëwaat ci dëkk boobu nag de mos naaxa ba yëgal nag waajuróom di ko xamal ne kama seeti woon daal daf ma doon gërëm nag démb nag ci yoor yoor waajuram nag ne ko man itam de heure boobu démb itam nag laa la doon sant fii ak a gërëm dajale waat waa dëkk ba nag di leen wax ne Souleymane mii ban heure laa ko doon gërëm ñu ne ko démb ci yoor yoor mu ne kamu yaakaar itam da nee nay démb ci yoor yoor nag la ko doon gërëm ñaari ngërëm yooyu nag dajee nañ nag ci wenn waxtu ci tawféexi sëriñ Souleymane Jonn bi ko seexul xaddim gërëmee ci njaareem te lam ko joxaale woon nag gura ca la bokk gura googu nag seexul xaddim joxoon sëriñ Souleymane Jonn njabootuk sëriñ Souleymane Jonn nag nee nañ diirum nag li sëriñ Souleymane Jonn nag di dund musu koo ñàkk bépp yitte nag bu masaa am ci guro googu nag la ko daa facca képp ku masaa nag di seeti ci guro googu itam nag la lay jox te ñoom nag musuñoo yëg fenn nag fu sëriñ Souleymane Jonn nag daa jënde guro wala ñu ko ko daa indil te xéewlu sax buñ ko masaa def ba noppi sëriñ Souleymane Jonn day yónni kenn rek ci njabootam demal ca garab gële rek indi guro gi njabootam gi nag li ci gënoon a jaaxal musuñoo yëg fenn nag fu sëriñ Souleymane Jonn nag daa jënde guro wala ñu ko ko daa indil waaye nag guro nag musu koo ñàkk nag ci diirub nag li muy dund ba tey ci tawféexi sëriñ Souleymane Dione fi sëriñ Touba Seexul Xadim bàyyi ko ba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke toog toogaayu sëriñ Touba Xadim Rasul ci liggéeyu jumaa ji yanoo woon na aw xeer nag ndokk ba indi ko itam nag ci jumaa ji xeer wa nag rëyaay ba ak diisaay ba nag jaaxaloon na ku ne ba wax nañ ne sax bis bi mu ko wàccee Cheikh Mamadou Moustapha nag dajale woon na nit ñi di leen wax ne kaa leen xool xeer wi ak ki ko yanu ba tey ci tawféexi sëriñ Souleymane Dione bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke toogee xalifa doon na ko yit nag lem itam nag ca taayifa bisub keroog nag ba mu eggee taayifa ba jox Cheikh Moustapha Mbacke nag lem ja bi ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag di gërëm la tombee nag teenub taayif ba bënn ba ci ndox moom sax jële woon na ko taayif yóbbu ko nag ci dëkk bii nag di mus ba tey ci taw féexi sëriñ Souleymane Jonn ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag sëriñ Mbacke Madina nag la joxoon boppam ci li ko dale ci atum 1945 ba ci atum 1976 sëriñ Mbacke na moo ko jullee saa bu masaa ñëw Touba itam nag kër sëriñ Mbacke Madina lay dal am na néegu ñax itam nag bu newoon ci kër gi moom la ko sëriñ Mbacke Madina jagleeloon saa saa masaa wéradi itim diirum nag lim ànd ak sëriñ mbàkke màddina su masaa yónni njabootam nag ngir sëriñ mbàkke màddina ñaanal ko saa bu ko sëriñ mbàkke màddina ñaanalee la muy wax daal mooy sëriñ mbàkke màddina moo baaxa saa bu ma waree génn àdduna mu yokk lu sama fan wi ba tey ci taw féexi sëriñ Souleymane Dione bi ko sëriñ Touba Seexul Xadim gërëmee ci dëkk boobu nag di njaareem doon na ko xamal ne da nga jiite nag dëkk boobu nag di musnaax wala tund wu musnaax wow lu tolloog nag ñeen fukki ati suñu boroom wala ci diir bu yàgg a yàgg doon tund woon ak ci côté bu ne lii di imaam itim nag moo ko fa nekkoon tëbës ceeg korite ci diirub li muy dund yëguñu fenn nag fu mu jànge jiite googu mu ko jiite woon nag te yëguñu fenn fu mu jànge waa tund wa itim nag daanañ ko waxtaane di wax ne sëriñ Souleymane Jonn daal fan la jànge nag ba mën a nekk imaam ginnaaw bu mu ci jotee nag doon na xamal nag askan wi jiite nag lu yomb la ba mu geesoo nag ca la doon seede ne Ablaay ñii sax mën naa nekk imaam te booba Ablaay nag doomam la waaye moo gënoon a tuuti nag ca jataay ba Ablaay moomu mu seede woon ne nag Ablaay ñii sax mën naa nekk imaam Ablaye moomu nag moo nekk imaamu dëkk ba jamono jii ba tey sëriñ Souleymane Dione nag daana wax ne sëriñ Touba Seexul Xadim daana ma wax ne lépp nag lu aju ci yow seen ëllëg nag yow la ko suñ wax nag ay mbokkam seen lépp nag mi ngi ci sama loxo yi daana xamalitim nag ñi ko jege mer moom duma ko gaaw a def wala mer moom duma ko def ndax su ma meree sama cër bu ne kënu la maa ngi des nag musnaax gi di dundal nag ndonal ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasul di wéyal nag ndigal li ma Seexul Xadim joxoon del jariñ a sëriñ Souleymane Jonn nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu nag mu feeñe jamono nag nekkoon fa nag di musnaax nekkitim nag ci wetu dëkk bii nag di ngunjaan ci boori xombal ci dëkk boobu nag la génne àdduna moom sëriñ Souleymane Jonn ci bisub alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ci atum ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ci atum 1396 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 29 janvier ci atum 1976 jeudi 29 janvier 1976 1976 ñu jële ko nag ci dëkk boobu nag di Musnaax indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci ki mu doon xoole nag Serigne Touba di Serigne Mbacke Madina Serigne Mbacke Madina nag moo ko jullee ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi soo delloo nag ci marché bi ko Serigne Mbaye juuf Baye faal defal mag ñuy wax nag dunduk Serigne Souleymane Jonn ay kiimaan nag yu Serigne Souleymane Jonn nag daa def nu mu ñëwee nag ci ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul tabe nag gu Serigne Souleymane Jonn tabe woon ci gàttal daal Serigne Mbaye Diouf Baye Fall lépp daal lu aju woon daal ci dunduk Serigne Souleymane moom daal la ñu tënkal daal ci marsiya nag bi mu ko defal sëriñ Mbay Juuf Baay Faal ku sopp nag sëriñ Souleymane Jonn la ñu teewlu nag marsiya bi mu defal nag sëriñ Souleymane Jonn mboolem murit yi déglu leen ma yeesal sama njëbbal taway ku yàlla baaxal danaa leen waxtu tuuti ci ay jaar-jaaram ngeen xam ne moo gëm yàlla ak maam xaadim bëri na fukki at yu mu laalul suuf mu door a tuub jébbalu boole koog jëf musnaax la bàyyi di dox ba njaareem mu jox boppam sëñ bamba ki dama yéem booba ci law jonn lañu ko daan wooye sëriñ bi naa ko sullaymaanay tur turwi foo bàyyi ko mu naa ko fii fi musnaax mu ne ko boo delloo yaa fay joxeg baax mu topp sëñ tuubaalu ëpp fukki at làq ngërëm te yoon la ko amit ci benn bis ci wenn waxtu yoor yoor la baay ba ak bambay gërëm ku ne sa kër bambaa ko ne suleymaan dellul musnaax da nga ko yilif ñeen fukki at sa lépp di baax dal ko ne suleymaan doxal di dimbalee bul fayu bul di gant saxal ci xettalee déglul ma wax la tuut ci mox ji saatam yéem daa def sëñ suleymaan jon na ñàkk moroom pël ba ñu naa maxa ba muy waaja faatu ñëw na fi moom taggu ko doora a laatu ba pël ba ñibbee ja Mustafa ko da doon tàggoo si day faatu xat wa faa daa bari woon wilaaya lool te maandu doon ku lewet loo ko waxit mu naa alhamdu ku masa tooñ sëñ Suleymaan rek ba ne tey mu rey ma bu ko yëgee tuubal la tuub gu rëy ku weddi nang ko laaj alhaaji jibril mas naa ruural sëñ bi sëñ bee ko tuubal déglul ma marsiyaal ko wax la doom ya danaa la wax ñamak ca taalibeem ya kañuy wax mbay jonn te dëkkoon kër yangaan doomi baayam la moo gëmoon Cheikh Suleymaan ak kañu naa wasit turam way Ousseynou Tine ab taalibeem la bum jegeel ci baatin ak Abdoulaye Ñing mañu da wax koo daan dëkkoon ca ñañaax moo ko daa rabal njoowaan Baye Saliou Tine mii doomi bàjjanam la Jibril Ñing jarbaat la taalibeem la li ma waxe bul weddi laajal kañu naa bàyyi gàngom jox na ko ñaar dërëm mu ne ko dang kee am loo bëgg am daana wax ne saa jéego bu nekk kënu la moo tax damay jéggale géew arasta gaaya la defal na doomam jañu naan mbay jonn fan wu gudd wu àndul ak di sonn am na magam yu mbokkal Cheikh Souleymane te fii nu toll kenn xamul fu nuy fanaan daana wax ne bu adduna sii daje woon fi man ku ne danaa la gis xam la xam la nga man baay gaan mi may wax doom la ci maam Moodu Ngom ma yilifoon tund wi ci mbooleem ña fa gëm ba mu tawatee bay bëgg a génni addina sëñ Souleymane ñëw mu ne ko yaa yor li ma yoroon jël na gambuk lem yët ko Cheikh Moussa al Karim mu naan ko yàlla ak Serigne Touba nangu nañ ko ñoom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 mu génnoon àdduna di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit saa bu masaa dikk njaboot gi mu fi bàyyi woon daanañ ko ci wàcceel nag ay kaamili alxuraan yool bi kat man koo fekk foofu mu tëdd biñ demee nag ba ci atum 2016 la sëtam bi nag di Mouhamadou Mbacke Jonn yëg ne kat maamam nag war naa am ab bis mu jël bis boobu nag di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru tamxarit di ci fàttaliku nag maamam ja sëriñ Suley Jonn ànd koog nag ay baayam nag ak ay magam nag ak i nag yi fi nekk ak wóllëre sëriñ Suleymaan Jonn ya ak màggalu guddeeg bëccëg la ci dëkk boobu sëriñ Souleymane Dione feeñe jamono nag làqoo fa di musnax nekk nag ci wetu dëkk bii nag di ngunjaan ci dëkk boobu nag lañ koy fàttalikoo ñuy ñaan ca jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xadim ja yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram itim nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itim nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey nag ngërëm lim amoon nag ci sëriñ Touba Seexul